sama gars yi ah képp ku bëgg a seetaan entraînement réew mi nga dem seen office point com ah lépp dina fa nekk yéen may dégg ay eh, saakees booy xeex del xool wax naa la nag. doo xool. combat Sa Thiès doon seen office point com. Reug kanam bi rëy na. foo dóor day daal ndam rek lay sa kaw feu. Gaston production ci njiitalu Mbakan Mbengue ñoo wootee le 5 mars ci arène nationale Sa soo mu dubalee soo mu géejiwaay ci waa géejiwaay bëgg yaakaar ko wóolu ko moom lañ jël nag mbokk yi daal di koy boole ak rëg-rëg doomu papakan doomu caaro yi xale bi déggagul mu ñël bu bëree rek mu neex dong lay ziar delloo ziar grand bi nakay tey ñu ngi sant yàlla bu baax yéen ngi waaj waaw ñu ngi waaj waaw ah. waaw ngeen fas yéene seen mbër ah daan rek bu soobee yàlla ah. incha allahu rabbi pare ngeen de. ah waaw pare nan. Hmm. Ah, waaw waaw. mbër pare na. waaw moom pare na. Hmm. ñaan yàlla mu mottali li si des rek incha allahu rabbi. ah waa bëre rek xam nga bëre moom. Hmm. dañ na bëre dóor. mën na jeexe ci dóor mën na jeexe ci bëre. ñu ngi ñaan yàlla lu mu gën a gaaw rek gën a baax mu yeewi ñu dem ndax suba lëndi la dañuy liggéey gis nga wala mafia bi jëlal gaa yaa ngi ñëw nii benn benn waaw instant moom wax dëgg yàlla ku seetaan combat Reug bu mujj bi passé war ngaa xam ne moom waa Caaroy wuy si nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax parce que guddi yu toll nii maanaam moom lépp li war ci làmb muy ci préparation muy ci bëre muy ci entraînement muy ci côté bépp mu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax noonu la demee mais ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ndam incha allahu rabbi. mais est-ce que xam nga waa xam nañ ko mbër la jàmbaar la bërekat la. waaw ndaanaan làmb la mais nag ñun moom kii moo nu ñor moom lañ xam moom lañ miin moom lañ bëgg te moom la ñuy topp topp ñu keneen rek rek la ñuy waaw. la ma fi am waaw daal macha waaw waaw ndam la ñuy yëg moom moo ñuy xeeñ te ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mottali ko moom mi yor ndam yàlla na ànd ak ñun tey. waaw ñun daal loolu la ñuy ñaan yàlla. ok jaajëf ñu merci beaucoup grand frère. ok incha allah. Ambër. waaw ñooy dolli ziar gaay ñuy waajal baax. waaw. pare ngeen quoi. nan bi yàgg. Mbër ba na. na. Hmm. waaw. non nelawul sax ñun du nelaw. bilaay yow. xam nan ka baax a baax. Hmm, ragalun ka non rakki Balla Gaye na doon rakki Modou Lo ba xam. Hmm. bilaay yow. non pare nan bëri rek kaas des jël victoire bi ñibbisee moom waaw. moom lu mu andi rek ñu andi lu ko raw waaw pare nan si lépp yàlla baax na yàlla ñu yàlla may ndam waaw loolu la ñuy ñaan yàlla bu neexee yàlla. ñu wax dara di jëlal waaw tey du yomb de ah. te Sa Thiès da jaay bëri wax dañu xas rek tey lay daj dëgg bu soobee yàlla Sa Thiès ngeen di si suuf la jëm jaaxaluñu ah. roi bi fii la jëm si caara yàgg yàgg fii la jëm si ah. waaw bu soobee yàlla day ñëw sa Sa Thiès ngeen di du dara la mañ wéree rek hmm. du dara ñoo ko daax a bëre ñoo ko ëpp doole waaw jaaxaluñu sax hmm. waaw Sa Thiès hmm. moo la gën a lido bi du omee. du jël sax wan. pour te dire. foofu laa yem. lido bi du jël sax wan. mais mbër tey lan la ra andi tey. nan kay lu koy digal mooy. na jël temps am tey léegi boo ko digal dara rek loo koy conseillé léegi nu koy conseillé mu ngi si moom amul loo koy conseillé na ñëw taxaw jàpp boobu sànni ko fële jël ñun roi bi lañ soxla soxla wu ñu ay saakees yi bu ñu paree jëm. sooba yàlla yéen ah ci kanam waaw. waaw ñooñu ci de ñooñu ci de kul nii ñooñu ci wàccaay bu baax a baax a baax non pare nan ñoom ñoo perewul mais ñun pare nan instant bii nii ah. waaw at bu siflee ngay comprendre. non xam nañ ko waaw noonu rek. Hmm. waa ñun ñoo xam nañ ko ñu am bu baax. Ah. billaay mbër la ñu yor ñoom dañuy bëre te ñun mbër lañ. ñoom dañuy bëre mais ñun mbër lañ yor. Ah, waaw. non pare nañ tous les côtés moom tey moom bi si caaree moom. Hmm. di ñaan yàlla moom yàlla may ka ndam incha allah yàlla naka may ndam. am na gëm-gëm boobu noonu incha allah. waaw ñoo par yow. ndam affaire dinañ gisawaat. jaajëf. waaw gis naa gars yi ne rëgg daa jël poids mais gis nañ poids. jëloon na poids waaye pour instant gisoo poids de. dama kaa nax. Hmm. bis ma ko duggee. waa waa Sénégal seen i bàyyi Sa Thiès Sa Thiès du pousse du passe Sa <laughs> ñoo ñoo gën a xam ne saa yi seen naaw sa doyul billaay wallaay incha allah si yàlla àndee dama koy daan xolal si lu yomba si yàlla àndee pare nañ ñoo instant yi si confiance boo xam ne mosuñ saa toog non non du Sa Thiès ay faayam daa bëri. te nit ki nit koo xam ne dafa intelligence su bëre aussi doo ko mayee faay ah pour àggala fu sori bu mu daal la sama day yomb yaa ngi dégg mais benn ndëxate nay may fu sori. mais faay yooyu tey dina mais àddina ni doo ba ni doo danay juum pour na daan day yomb. mu loon bëree bis su ko bëree ba ma capturé ko si kaw air bi bis su ma ko plaqué wul mu daanu naa ko yaru wax ma doo ko jabaxal mu daanu day xool. aw lan la. jaajëf maay borom dëkk bi. waaw maay borom dëkk bi Baye Mbaye Pakka. Ah. waaw firi rek bàcc bu yeexee doog a gis. Eh, dégg loolu. na gën a gaaw sarax nonga ba mu jël ak dooleem. Hmm. barki maam Serap Fall. tey nu ngeen waajalee seen non ñu ngi waaj comme ni ñu ko daan waajalee rek. ñu ngi daan waaj comme ni ñu ko doon waajalee ndax rërëng moom ku ko xam-xam dëgg xam ne waaw ken du ko wax nii ngay def ak nële moom ngay def si àll la lu mu visé da koy jëli te maa lay wax lu garaaw gis nga suuf si ngay gis nii hmm. sunu suufi maam la de arena bi sunu suufi maam la état danoo jaay doole nangu ko def ko esat mais duñ ko xeexee ay xaañi xeer wala ay àll xam nga lan lañ koy xeexee kun fa bëreel daal la. billaay wallaay. am na ñu naan rek rek dafa jël poids. non poids bi moom boo déggee ñu naan dafa jël poids boobu li mu peere moo bëri rek ndax boo seetee dafa jugee si MMA bi bu mu jugee si MMA bi récupéré entraînement MMA ak entraînement lamb arène bokkul. xelam moo dal boo ñëwee rek sa yaram naay rek boo récupéré da ngay am poids maanaam loolu taxu kaa ñàkk bañ a bilaa walaay. mais Sa Thiès ngeen dafa mën a bëre. a bëre am na vivacité ñun ñëpp xam nan nga mais bu yeexee doo ko gis barki arxuraanu karim bu yeexee doo ko gis dafa mën a bëre xale bi dafa mën bëre xoolal boo seetee ñun sunu grand frère yi gars yëpp tey xam nga ñu ngi def mobilisation di préparer li ma la wax rek sarax nonga baa mu jël ak dooleem xoolal saa du xool du pimpax Sa Thiès du pimpax bilaa walaay. si kanam incha dañuy daan bu soobee yàlla maa la ko wax gars yi nan ibbi xoolal nan ibbi bëri xool bi laa walaay mbër naka mu. ah ñu ngi siyaar wér. jaajëfate. waaw ñoo jaay t-shirt rek ah. rek waaw. fan si rek rek si koñ bi ah. waaw bu xewlee ñun ñëpp ñu jàpp si. Hmm. waaw jaay rek. di ko ñaanal waaw waaw ñu ngi sant yàlla. di ko ñaanal yàlla rek yàlla may ko ndam. Hmm. rek kese waaw. dugg leen rëg baax nag yàlla na ko dóor ba mu naka si mbaw ci biir ci biir bi yàlla na tëj biir bi ba tëj biir bi laa bëgga mu tojal ma biir bi maa la wax loolu man rek ah. man maay Awa Ndiaye ko dégguree xam nga ka ngeen di bëre daa mën bëre de maman laay maman nu mu mën a bëre gàttaan mi hmm. doole la am nag te dooleem day dem xale la te moom mag la dafa ami doom kii nag moom ci digg ndëndaam la nekk yàlla ka yàlla jàppal sërëbe maam Xalifa Maalik moom rek la ñu ñaan ay tijaan lañu te day dem rëg-rëg rek mooy rëg-rëg bu jaa boo déggee yabay bu sew bi rek mooy rëg-rëg bu jaa boo déggee rëg-rëg mooy yabay bu sew boobu ànd ak mërëb bi di la di la raxati mooy rëg-rëg maa la wax loolu rëg-rëg bu ko jàppee ba bàyyi ka da kay motta ne ni ab laax yóbbu ko ardana tey rek lay tey la lamba ji sàcc ñu doon bare ah. suñuy xamba nga géej géej la ñuy tuuru boo demee géej bi ay lébu lañu xamba yaa nga ak meew desul soow desul liminaat desul yëpp paa ngay gàllaa ñoo nag sa ay lébu waaw ay lébu lañu pii ñun ñoo maa dox boobu salaam. na ngeen na waaye toom waa jël ko rek def ko nan ko daan defee rek ndax ba të du maasa mbar yéen yaay watandoo bu guddi jotee ku ne xam na ki la man yaa may dégg rëg-rëg du moroomam bu ko jàppee dina xam ne fa ko yàlla daan jaara rek fa la daan jaarale wasalaam jërë ngeen jëf mbër la nii bëre waaw ma xam nga Abdourahmane Ndiaye falang lu mu waxoon loo falang falang du lu tee ñëw rëg-rëg kële lu mu falang falang rëg-rëg du mu ñëw. yaa may dégg yàlla na koy jaara fa mu ko daan jaara waar rek dafay jaar nag incha allahu rabbi dénk nañ ko yàlla yonante baak Serigne Babacar si naka yàlla defal mu fa mu ko doon jaare mu jaaraat ko mbëttalu maasam bar nag yéen watandoo bu guddi jotee ku na xam ne ki la man waaw mama na def maa ngi fi rek maa ngi ci jàmm dégg naa yaa ah, doon maamam laa de wax da dëgg ah. yàlla baax si man koor bu ñëwee suukar la may jox ak ceeb maa ngi koy gërëm di ka ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na yàlla may ko ndam am na jàmm ak ñun suñu rombee nuyu ñu suukar ceeb la ñu jox koor yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko ndam. mais Mbé Mbéla est-ce que xam nga ngeen di bëri. doomu Double Less ngeen waaye ñu itam sëtub Modou Kane la ñuy mooy bëre sëtub Modou Kane mooy bëre. Papa Kane di baayam bokk baayam baay. kon nag doom yi moom itam sëtu mbër la doom yu mbër la maam mi jur yaayam da daan bëri. kon daal pare ngeen. pare nañ. daan ñu gaal ga moom mu nga géejawaay rek yëpp yëpp na ni yebee ñële ñële ko yebee yaat. mais mais wuyu ma sama question dégg naa yaram yaram sàng rëg rëg taa xale. dégg li ma la wax la maay maamam. waaw. problème ah, ah, ah. anam bër pare na. woo oh, pare mm-hmm. waaw. tere na kon mi naa waajee rek. Ah. waaw ñoo rek jàpp daal dem suñu yoon. Hmm. waaw mu jiyee tàkk. waaw 1000 pour cent lañ pare 1000 pour ko xam nañ ko ko ay faare lay def ay faare comme mbay mbir ay faare la. xoolal du ko may du ko du ko meru du ko xaar sax ay faare mi du ko xaar. waaw combat bi bu gaaw lay doon. Hmm. parce que ñu ñaan kenn du taxaw di xaar ñu ñaan kenn du taxaw di xaar kenn bu dee saa tey saa bi ab bisimilah dox na sa kaw. te rëg-rëg moom da ngay liir koo xamante ni yow rëg-rëg tëj na bu mu bëppaju ne tëj na fu ne fu ne la tëj fu ne ci kanam kii daa mel ne kafe jaay de kafe lay jaay kafe lay jaay fii ngeen di jaay waaw naka bu naka war nice naka affaire yi affaire yi ñu ngi si rek yéen a ngi waayal bis bi waaw ñu ngi waayal bis bu baax a baax a baax waaw ana mbër mbër mi ngi ci biir pare na ñun pare na bu yàgg ah. waaw est-ce que xam ngeen ngeen di bëreel. xam nañ ki ñuy bëreel moo tax pare nañ bu yàgg. Ah. waaw xam naa ne moom la ñuy waay ñun xool ñu loolu de. Ah. ñun xool ñu xool loolu. xoolal loolu quoi. gisuñu loolu. Hmm. waaw. te lan ngeen nar a andi rek. côté xeex moom xeex moom du du ko wax. Hmm. waaw. mën na xeex. bañ a mën a xeex. soo ma lay xeex sa bakkeen a ngi si xottu gerte MMA rek ku koy rek boo ma lay xeex sa bakkeen mi ngi si xottu gerte boo vigilant wul sa bakkeen mi si xottu gerte. bërëb yow day ko gisee si moom si moom rek comme day day réer di ñëw bu réeree ñëw dina xam fu ñuy jaar ak moom te fële arène nationale lañ jëm de sunuy maam ñoo fa daan bay ñaxawoo ñu daan bay foofu noonu ah. ñaxawoo ñu daan bay foofu laa ah. arène nationale bi ku fa dugg ak rëg-rëg di nga xam ne lépp dëgg la sunuy maam ñoo daan sonn foofu. mais pare ngeen côté mobilisation. waaye pare pare moo tax ñu toog ñu toog nii di kontaan. gisuma sa maillot yooyu de. non man sama t-shirt rek ci biir sama t-shirt rek ci biir damay bañ mu taas. Ah. damay bañ mu taas. kon ci kanam. yee mbër damaa ya mbër dañoo yàgg ak moom si taatu tefes gi moo tax ñu xam ko bu baax moo tax mënuñoo tiit ci bisam maanaam sangu géej ba pare ñëw sangu géej ñëw tefes gi yaatu nga jéggi si gëri contact danoo yàgg ak moom si loolu moo tax moo tax mënuñoo tiit ci moom ci bésam mënuñoo tiit ci bésam kon baax waaw waaw si kanam si kanam waaw si yaar ma ndax am sant baay amee la pare ngeen de waaw pare nañ si lépp kañ sant ah. yàlla rek alhamdulilah ana mbër ma ngi ci biir waaw mu ngi si biir ba sax yeewu na yeewu na day génn mu ngi nii léegi mu génn dugg fii ah. waaw xam ngeen génn bëri non non soxla nu koy xam na yàlla defal nañu saay su nekk ñun dañ doon dem di xool ñoo xamante ni xamuñu leen xamunaale wunu leen di bëreeg ñoom kon ba yàlla def muy bëreeg koo xamante ni moo di jiit ci làmb ñu yàgg koo seetaan. la ngeen andi lépp la ñuy indi lépp la ñuy andaale ndax àdduna foo mënti dem rek da ngay yóbbaale lépp waaw ñun moom dañuy yóbbaale lépp yàlla nag mooy maye ndam dañuy yóbbaale ndam yóbbu defet na yàlla yàlla yàlla ñun yàlla kese lan mën a ñaan ndax moom mooy maye yàlla nu yàlla suturaal loolu la ñuy wax loolu kese la ñuy ñaan yàlla. mobilisation nañ si lépp pare nañ si lépp barki yàlla boo xoolee caara ñu mobilisé nga xam ni pare nañ si lépp barki yàlla ragaluñu loolu barki yàlla jox la jëli ko jox la jëli ko billaahi wallaahi taala non mooy loolu xanaa déggoo gars yi leen wax nee ku juddoo si tagar bu ko kontee la seen roba loo man laa lay jar kon ragaluñu loolu billaahi wallaahi taala non dañ kay jël billaahi waaw delloo ziar wér-dóor waaw ñu sant yàlla bu baax naka ngeen waajalee waaw bës bi ñu ngi koy waajal ñu ngi koy waajal ñu ngi koy préparé bu baax sax waaw. waaw mbër moom pare na moom waaw. loo xam nga poids euh, li ci li am solo ci euh, poids mooy na nga moom sa yaram rek poids boo mënti am rek na nga àttan sa yaram te moom euh, moom moomu yaram moom moomu yaram poids bu mu mënti jël rek moom dina mën a gérer boppam si poids boobu quoi. waaw xam nañ ko waaw xam nañ ko <laughs> de loolu loolu amul sens ñun man doomu Baye Modou Kane la man doomu mbër la loolu c'est pas important li am importance mooy yow nga prouver si làmba ji nga daan ay ténor dem Coupe d'Afrique nga def fa champion jël drapeau chef de l'État jël drapeau Marème fay Sall loolu moo solo nga nekk deux fois champion d'Afrique individuel ak group loolu moo ëpp solo ay doomu diw la ak doomu diw doomu diw la ak doomu diw la <laughs> c'est pas important man doomu Baye Modou Kane laa man bàyyi laa si xale bi. ah combat la daal combat nag moom. mën na gaaw wala daal combat la daal combat la waaw combat la daal waaw ñun daal waajal nañ ñun nag suñuy mbokk ak ñëpp. waaw li def daal mooy ñaan ñu ngi ñaan nag que suñu mbër daan daan bu waaw jël bu jël bu mucc ayib voilà. waaw incha allah. maa ngi lay delloo ziar. mel ne pare waaw pare nan comme ñëpp rek comme comme neen ko daan defee rek. père fi ngeen fekk géej la ngeen fekk de. waaw ci géej gi la ñu fekk. xam nga mbër bu njëkkoon ci géej lay juddoo. fi lay yaroo fi lay fowe ba jàng bëre ba man bëre dangay màgg rek màggaale bëre. ñun fii lan li lan xam ay lébu lan te danoo yàgg ñu ñuy wax naan lébu day mën a bëre dégg ko nag dunde ko boo dundee bëre moom xam nga ne kenn du la jaaxal ñun amuñu adversaire benn adversaire amuñu benn adversaire ñëpp sañuy adversaire lañ kun ñu jox rek ñu jël ku ñëw rek mën na noo def ak moom parce que lii da di sanu deret daal xam nga looy dund ak kun naan jéemal wala nga dem entraîner wala pour kenn ñun duñu loolu. ñun lébu lan lébu nag day dundal mbër moo tax adversaire bu ñëw rek yéen ñi ñi nga xamante ne yéenay presse bi yéen lay jaaxal mais ñun lébu mbër jaaxaluñu. Ah. waaw yow li ñu wax si Reug Reug loolu ngay wax wala li non moom moom xam nga moom man la wax li li moom li muy liggéey lay wax mais li ñi li ñu ñuy wax mooy bu Reug Reug jàppee jeex na yow mi may dem ah? waaw Reug Reug du bëre loolu tey lay feeñ tey jii dina feeñ ñun li ñu man yow xam nga ko yow mi may laaj sax yaa ma gën a xam ne Reug Reug bu ko jàppee mu jeex waaw looy laaj la rek parce que li sa liggéey la mais xam nga ne Reug Reug bu jàppee leneen la ñuy waxati yàlla nu si yàlla yóbbu nag ndam rek lañ ci bëgg. ah fii maa ngi nii rek. ñu ngi ci wàccaay bi may pare nañ. ana mi ci kaw. Hmm. waaw. mais salaam rek. Hmm. fair play discipline rek la ñuy woote. Hmm. ñaan yàlla may ñu ndam. waaw. fair play discipline. la ñu woote. Ah, baax na. maa ngi leen daa mel ne waaw pere nan pere nan. mais gisaguñu mbër de. waaw mbër mu ngi ci biir daa am na réglage yu ndaw rek yu ñuy def mais pere nan bu yàgga tey nan tey. tey daan waaje rek. ñi daan waaje rek ndax ñun làmba duñ ci gan. làmba moom duñ ci gan. daan waaje rek la ñuy waaje. moom ci adversaire bi la. dama dégg lu neex lu mu wax ñu ne dafa gaaw loolu la ñu soxla Sa Thiès gaawaayam googu la ñu soxla mbër sax wax naka nee na balaa gën a mën a neex mu gën a gaaw adversaire yi mu daan dajal ak adversaire bi bokkuñu sax bokkuñu nee na téeméer bu leen tëjoon ci néeg lu nu wuutalee non kii dafa namp biri ci yaay wàllu yaay baay maam yëpp da kaa te dafa rampe dafa dem ci àll bi pëj ka tasar xuus jàlla kenn gungeewu ko mel na moom sël waaw Sa Thiès adversaire yi ma daan am adversaire bi ça fait deux bokkuñu sax yooyu gaa yooyu am ci moom bu ko waaw xam nañ ne leen leenu bëreel ñun ki ñu yor dañ kaa xam ki ñu yor dañ kaa xam te bu ngoonee nga xam ne ki ñu yor ñun dañ kaa xam waaw insha allah rabbi jaajëf. Cheikh naka mu mel de. ah. <laughs> waa Cheikh ak ngoog. daa mel pare nga yàgg na. Ah. waaw. waaw te loo andi lu bees rek. Ah, bees rek comme ni ñu ko doon defee rek. waaw ñun suñu borom may nañu ay xel ñuy xalaat. Hmm. waaw sa combat ak lu bees incha allah ndax gan gi da kaa ñaan yàlla yàlla may ñu ndam lu sedd bi si barke Seydina Muhammad te incha allah dina am. te combat bi tey waaw combat la comme combat rek comme moom gisee ñàkk sans dépense yi moom rek comme moom nee na day ñëw bu ñëwee mu gën a gaaw waaw moom na ñëw rek bu ñëwee moom bu ñëwee moom xam naa ne ko xeeb doo gis jël balaa gars yi di comprendre ñun ñu ngi reer fii incha tey tey tey yan ngay tey lu bees. waaw déggoo li ma la wax kay. ñun ñun yu bees kese fi ne. yu bees kese. amul lu bees. amul ak yu bëri yu bees a ngi fi. ñun sax combat yu bees kay. kon tey daal dina neex. waaw yow. xaaral tuuti fii sax fii lay commencé. waaw non bii ñëw dañoo dañoo xaw a. voilà daara xewagul booy dañuy sol plastique yooyu rek. waaw kon ci kanam. ci kanam incha allah. sama gars yi ah képp ku bëgg a seetaan entraînement rek na nga dem senoffice point com ah sama everything lépp dina fa nekk yéen a may dégg Sa Thiès booy xeex del xool wax naa la nag. donc xool. combat Sa Thiès Reug Reug PPV lay doon seen affice point com. kanam bi rëy na. foo dóor day daal ndam rek lay sa kaw feu. Gaston Production ci njiitalu Mbakan Mbeng ñoo wootee le 5 mars ci arène nationale Sa Thiès soomu dubalee soomu géejiwaay ci waa géejiwaay bëgg yaakaar ko wóolu ko moom lañ jël nag mbokk yi dal di koy boole ak rëg-rëg doomu papakan doomu caaro yi xale bi mu muñal bu bëree rek mu neex